haa wala duniyaati haa wala duniyaati shukran shukran shukran shukran seen ruux di taxawu mbindeef yi di leen teg ci yoonu leer almahdi firil jullit yi ruux di taxawu min yi di leen teg ci yoonu leer ah sang bi di njiitu awliya yi di miinal ruux yi xaybu di leen yar ci dëkk ci dëggu leen sellal di labal dun bi sa mission universelle sa géeju leer gi sa déggu xam-xam yi sa teen yi nga balal di labal dun bi sa mission universelle bi axiru zaman yaay ki koy leeral ndax leer gi fii ginde la ka yàlla jox dani ñaan nga teel ñu ba dunu bàyyi buumu leer gi yàlla wax na waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu dinan la way ñun dinan la gën sayyidal wara yow yaa nu yiir yow yaa nu jàngal leen dinañ la wéy ñun dinañ la kañ yaa sayyidal wara yow yaa nu yiir la maam Fatou Diop soxna doyen Ndiaye bu Tëngéej <laughs> waaw. yaa ngi jóge Tëngéej ñëw fii tey gàmmu Medina Cheikh ah, sa wàcc fii ñaar Medina Cheikh ban yëg-yëg nga am daal si ñëw ci bërëb bu tedd. macha allah mbégte bu neex a neex bu baree baree bari mbégte boo xam ne mbégte di yëg-yëgu lislaam la ak diine ak bëgg yàlla ak Seexu Tijaani ak sang bu tedd bi sall. ñu ñaan yàlla yàggal ko fi lool yàlla may ñu wér ñu yàgg ko teewee lool ci barke Seydina Mohamed borom guddi gi macha allah mbégte rek lañu ñu nag kontaan lool lool lool lool allah. ok jërëjëf dañ jóge. ñoo ma déedéet yàgg naa ñëw koy macha allah yàgg naa ñëw kontaan bëgg. xalaatuñu dara ah, waaw macha jërëjëf waay. man maa ngi tudd euh, Al Khalifa Amadou Seck Dieye bu daayatu imaan bu Mundoom waaye tey nag ñu ñëwoon teew si vraiment ci gàmmu 2023 bi fas yéene ko gàmmu at sunu sang bu tedd bi yaa imaam al mahdi alayhi salaam mawlaay Cheikh Seydi Hadji Mohamed El Cheikh comme niñ ko daan defee saa su ne rek depuis bi ñu duggee ci xadara bi ba léegi waa di ci am mbégte rek vraiment tey kontaan vraiment bu ñu ñëwee à chaque fois fii ci Médina Cheikh xam ne luñ fi fekk rek mooy lumière rek lañ fi fekk waaw at ay xéwal at ay ngëneel waaye ñu ngi ñaan yàlla lépp luñ fi taataan ci ay yiwoog xéwal ak leer yàlla na baawaan saawaan ci biir réew mi yëpp ba bépp jullit jariñu ci ci barke Imam al Mahdi alayhi salaam waaw di leen ziar lu bare di nuyu waaw wala Duniyaati TV yëpp macha allah. maa ngi jógee daayratul imaan bu Mundoom barrage ah ñu ñëwoon tey nag seet suñu sang bu tedd bi nga xam ne amuñu ku dul moom ndax duñ ne gàmm Medina Cheikh rek ku nekk danaka sawar macha allah ku ne da ngay yàkkamti dem ndax bërëb boo xam ne bërëb bu leer la te ku jaam yàlla tax a jóg wax dëgg yàlla doo fa accès moom di nga ci am ba mu doy ndax bërëb bu zikkër la bërëb bu jaamu yàlla la kon nag ñu ngi ciy sant suñu sang bu tedd bi bu baax macha allah nga xam ne lépp moom la tey fi mu ñu jëlee te fi mu ñu jëmee wax dëgg yàlla gis nañ ko macha allah xanaa di ko bàyyeeg bàyyee mu tedd bi rek ndeysaan mu téyel ñu bokk téyel ñu ko bu baax macha allah di leen jaar bu baax a baax di rafet loolu di jaar yëpp macha allah firil jullit yi seen ruux di taxawu mbindeef yi di leen teg ci yoonu leer almahadi firil jullit yi seen ruux di taxawu mbindeef yi di leen teg ci yoonu leer ah sang bi di njiitu awliya yi di miinal ruux yi xaybu di leen yar ci mbokku téléspectateur euh, wala dunia yi ñuy seetaan ñu ngi leen di jaajëfal si ànd bi ngeen ànd ak ñun une fois donc tey ñu nekk toujours à Médina Cheikh pour gàmm bi xamante ni mooy moom la ñu dëgmal muy euh, année 2023 bi ñu ànd ko ak kilifa mooy xam euh, Seydi Mouhamed El Cheikh donc comme niñ ko tàmm di defee rek Cheikh Tidiane Sembène gàmm gi encore c' est toujours 4 jours moom la ñu tàmm di def fi à Médina Cheikh jours yoo xamante ni c' est très riche en programme donc on va essayer certainement de voir ça avec Cheikh Tidiane Sembène Euh, premier jour bi sax yaa ngi ñu ngi euh, def euh, au programme def naa a à 21h clôture Bordeaux bi. Ah, effectivement effectivement soxna ñu ngi am clôture du Bordeaux. tey jii nii war ko clôturer nga xamante ni en même temps sang bi tedd moo tuddee nii moom laay Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. ki nga xamante ni c'est la nuit dédiée au xatmiya du prophète ki nga xamante ni mooy xatmiya yonent bi sallallahu alayhi di Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane sang bi di ci jàng Bordeaux bi te ci Bordeaux bi. def ci conférence bu am solo comme ni koy amee chaque année nga xamante ni lay doon lu ci ëpp nag jëmale ko ci xatmiye bi nga xamante mooy borom lumière di Mawlay Cheikh Tidiane Chérif. donc on dit que c'est la porte d'entrée balaa ñuy dem ci guddi gi nga xamante mooy porte yonent bi sallallahu kon mënul dem ci mawlud jaarul ci moom nga xamante mooy xatmiye bi macha allah donc mën donc bu bu loolu weesoo ñu jëm ci jour 2 jour 2 mu yem Donc on a programme à 17h, de 17h à 19 des Arts Spirituels. Ah, le Festival des Arts, mmh. ouais, Festival des, des arts Spirituels, euh, waaw euh, ndax la nekk ne initiative boo xamante nii ñoom xalifa euh, professeur Massamba Coulibaly mhm. ak ñi ànd ak équipe am allah ñu organiser ko mhm. mu nekk lu am solo loo dañ ko indi ci xadara Imam Mahdi indi ko mhm. aussi mën sax pour tous les musulmans ndax li ci def mooy ay du Mahdi nodd am na ci am ay ay ñi nga xam te ay chansons spirituelles ñi nga xam te ne def aussi wàllu écriture bind ay poème ci Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane ci Mawlaay Seydi maanaam benn benn grenier boo xamante ne dañ fay dañ ay talent maanaam benn tool la boo xamante ne mën dañ fay saxal ay talent yoo xamante ci kanam mën nga ni nekk de grands artistes yoo xamante ni lépp nekk sous la couverture de la lumière du prophète sallallahu alayhi kon mu nekk lu am solo macha allah. Mhm. donc bu ñu si loolu toujours à 21 de 21h à on a également la projection. Euh, des premières gàmmu euh, de Seydi Mouhamed El Cheikh. effectivement muy événement bu am solo aussi ci gàmmu gi ren jii ndax lool defe naa ni mbokk yàgg nañ koo xaar. Euh, Seydi Mouhamed Cheikh bëy nañu koy xam bëy nañu koy sopp tout le temps mbooloo moom mi ngi yokk mhm. waaye am na ñoo xamante ne lu bëy daf leen raw mhm. ci. ci li passé woon ndax moom mhm. depuis euh, vingt six euh, depuis le 10 avril. 2006 le 10 avril 2006 ca de premier à l'âge de 23 ans. defe naa nekk benn ci benn saal bu ndaw la ko defee woon fële ca euh, ca ca Njolofeen waaw waaw loolu nekk lu ndaw loo xamante ni mën nga ni ndaw la ci shahada waaye ndaw na euh, yaatu na ci xaqiqa mhm. ndax ndigal la woon jóge woon ci Mawlaa Cheikh Tidiane ba léegi nag gàmm yooyu di ñëw mu nekk jeune ci wàllu shahada waaye Ghaibou Falco muy jàngale xam-xam gàmm yooyu ni mu yàggee woon mhm. vingt ans ci ginnaaw quinze ans ba léegi dara changement amu ci mhm. waaw plus de vingt ans ba léegi mën nga ni dara changé wu ci réalité yooyu mu doon jàngale xam-xam li mu jàngale kon ren c'est une occasion ñu am détail boobu moom macha allah nga xam ne benn benn projection la boo xam ne bu am solo boo xam ne ñëpp ñu ngi koy xaar macha allah tey ci gàmmu loo xamante ni mbokku taalibe yàkkamti nañ ko seetaan macha allah yàkkam nañ ko donc ñu ngi koy xaar avec euh, beaucoup d'impatience donc à également on a la projection euh, de l'épisode du film Dajjal effectivement euh, épisode du film Dajjal qui est aussi un événement attendu mm. mën nga ni phase cinéma la ndax foofu moom après 2020 mm. Moulay Serigne Cheikh a fait une extraordinaire sur l'histoire de Massex Dajjal ci loolu la waa Damiru Kawni studio euh, daal di defaree film boobu di di di Massex Dajjal muy film bu am solo di film animation boo xam ne xale mën a ko seetaan mag mën a ko seetaan mu jàngal leen histoire Dajjal vraiment ci anam boo xamante ni ñëpp mën nañ si jariñu épisode 1 bi jàlloon na ñëpp apprécier ko mm. épisode 2 bi nag mooy ñëw ren euh, war a war war a euh, nekk en projection macha allah fii ci Medina Cheikh

ak face bi. Mhm. ndax ci la ñuy primé defe naa mhm. primé ci ils ont deux jours. am na jour boo xam dañuy def seen prestation. Mhm. lendemain. Euh, ci la ñu def si euh, joxe remise de cadeau yeeg yooyu. ak ak ak éléments yooyu noonu mooy symposium des enfants. waaye symposium des enfants mën nga espace des enfants aussi lay espace des enfants. waaw rouge euh, c'est pas s'ils ont prévu cette année. mais tapis rouge c'est juste c'est pas loin de face. c'est pratiquement les mêmes équipes qui ont créé qui ont créé Fass mën ngeen tapis ah. rouge mhm. day dugg ci Fass. ci mhm. festival des arts. waaw d'accord donc tapis rouge festival des arts. dans le day dugg waaw ci Fass day dugg ndax ay prestations de chanteurs la. ay artistes yu ñu invité ñu développé seen thème. Mhm. daaw amoon na fi ren ji defuñu annonce ci côté boobu waaye dañu jàpp ni festival bi moo englobé élément tapis rouge yooyu. mais symposium des enfants boobu c'est espace des enfants euh, autant espace des enfants mhm. ñoo fi war a def développement boobu daaw defoon nañ ko muy ay ay xale yu jël ay thème di ko di ko jàngale islam mhm. thème wàllu éducation ay thèmes yu am solo yoo xam ne ay xale yoo xam ne bu ñu nga xam ne ñi xale yi mhm. ay kilifa moo leen yar waaw kon loolu gis ci xadara Seydi Mohamed Cheikh macha allah ay xale yoo xam ne bu ñu waxee rek da nga naan lii kii wax ah, moom euh, magum jëmb la donc certainement kilifa ñoo nekk si ginnaaw di leen à 22h la cérémonie euh, de, du Mawlud en tant waaw boobu mooy nag le grand événement. Mhm. waaw mooy le grand événement tant entendu ndax bu ñu nee yonent bi sallallahu alayhi ñu xam ni mooy euh, le le le le le meilleur des meilleurs. Mhm. mooy moom mooy l'excellence. Mhm. waaye mooy ki nga xamante ni aussi euh, bu ñu nee euh, waaray bi yëpp daje nañ rek. Eh, ku ñuy tagg di ko sargal rek mën nga ni ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay dellu ndax yàlla ko santaane waaye nag fii nag Medina Cheikh ñu am ndigal bi nga xamante ni di am sens bi nga xamante ni di ko defee ci keppaar Imam Mahdi Muntazar alayhi salaam Mawlaay Sidi Mohamed Cheikh muy jàngali yonent bi sallallahu alayhi wasallam toog ci wetam di jàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam Mawlaa Cheikh Tidiane xat mi wetam kon loolu fenn la amee muy fii ci Medina muy gam boo xam-xam yi fii génn chaque année képp rek xam ni Mawlaa Seydi Mouhamed Cheikh euh, morom. macha allah donc mu des euh, le dernier jour muy euh, jour 4 bi. donc ñu dëgmal ci Wasifa Tisbar Wasifa Tisbar effectivement muy aussi beneen événement comme ni nga ko xamee chaque année boobu aussi doon même cas ndigal bu jóge woon ci Mawlaay Cheikh Tidiane yi mhm. mu joxoon ko cadeau aussi de lumière mhm. ni ko sama wasifa ba ma la ca phase ba tarixa Tidiane yaa di sosu mhm. ni ko jël ko di ko def ca Medina Cheikh heure bu ñu gàmmoo ba pare loolu waaw mooy wasifa tisbaar ndax Mawlana Cheikh Tidiane insmi mm-hmm. ko marhaban yaa seydi mm-hmm. di ko loolan daan wasifa yooyu mm-hmm. fekk boobu ci désert de Samhoun la nekkoon mu woon ca Algérie waaw kon réalité boobu mooy sos cosaanu wasifa waaw réalité lumière boobu nag xaqiqa boobu yëpp la moom Mawlaay Seydi Mohamed Mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane yi uh-huh. jox ko Mawlaay Seydi di doomam xaqan ci lumière chaque mawlud mu koy amal lal wasifa ci tisbaar ñëpp julli tisbaar lal mbalaan ñëpp wasifa nekk garanti boo xam ne da ciy garanti taalibe yëpp garanti jullit yëpp ba garanti ci Sénégal garanti sax àdduna bi yëpp kon yàlla ñu yàlla buñ ko kenn umpule euh, bañ mën ci jariñu macha allah euh, teewe ko ay déwén déwén déwén déwén amin donc lii moo nekkoon programme bi nga xamante ni ci lañ jëm donc muy 4 jours yoo xamante ni comme ni nga ko waxee donc c'est riche euh, vraiment euh, ci événement ci riche en lumière c'est riche tout simplement donc euh, ñu jëm si ak jàmm génn si ak jàmm mm. donc on vous donne rendez-vous également dans quelques kii ak yeneen interview ak yeneen kii yeneen programme tout simplement voilà merci beaucoup jërëjëf yaa Seyda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 محمد رسول الله عليه سلام الله اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتعاقرة عائدة المركز القوم والمعاني والنور الأكوان المتكون العدمي صاحب الحق رباني المرق الأسطح المذن أربع ملات لكل مطارد من البور والأواني والنور كلام الذي ملأت به كونك الغيث المهجنة المكان اللهم صل وسلم على عين حق التي تتجلى منها عروس الحقائق عين المعرف الأقوام سرادك التام الأسقم اللهم صل وسلم على ثلاث حق بالحق كنز العظم عبادتك منك إليك إعادة النور المتلسم صلى الله عليه وعلى لي صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية واليقظة متحققة عائدة مركز الفهم والمعاد الرحمن والنور الأكوان المتكون العدمي سعد بالأقربان الباقي لا صاحب مذ الأربع ملأت لكل متعد من البور والأوان والنور كلامي الذي ملأت به كونك الغيث بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين حق التي تتجلى ملا غروس الحقائق عين المعرف في الأقوام سراتك تام في الأسقام اللهم صل وسلم على ثلاث حق بالحق عند الأعظم عبادتك منك إليك إعادة نور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة متحققة عائدة بمركز الفهم والمعاني والنور الأكوان متكون الأدمي سعر بالحق رباني البرق الأفتاح مذن أربع الماليات لكل متعدي من البور والأوان الجنة والنور الكلام الذي ملأت به كونك الحاجة بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين حق التي تتجلى منها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 fa inna min juudika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal-qalami mawlaaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khayril khalqi kullihim bismillahi rahmani rahim asalaamualeykum ñi ngi dellu si di ndokkeel mbokk yu tedd yi fi teew yépp dellu di sant yàlla moom mi nga xam ni moo nu may nu fekk guddi gu tedd gi te nu jagleel ko Mawlaaya Cheikh Ahmed Ibnu Muhammad Tijaani Cherif su ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni moom la Cheikh Tijani Cherif am kom kilifa moom itam yàlla dogal nuy barkeelu ci weer fa tabaarakallaahu mu mel ni xakim yi dañu daan faral di wax ni yàlla su gërëmee jaamam ñu wax ni loo laal ci jaam boobu rekk bokk ca ngërëm te itam yàlla daf nu boole koo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tànnal boppam def ko mu doon xatmiyatul maktum waay itam yàlla dogal muy barzaqul maktum su ko defee loolu yépp daje ci moom yàlla may nu chance bu tolloog nu ñëw bokk ci njabootam te moom Cheikh Tijani Chérif boo ko xàmmee li ngay njëkk yëg ci moom mooy njabootam dafa yaatu moo tax ku mu dugal ci biir ëttam rekk teral na la ndax njabootam dafa yaatu waaw jëmm bu tolloo foo xam ni mbooloom ku bokk ci saalihiin yi dangay ngay pour bokk ci njabootam soo demee ba yëg ni yaa ci ëttam jamono ju nekk rek sant yàlla daf lay war gi fii gindee yow la ko yàlla jox dañuy ñaan nga teel ñu ba dunu bàyyi buumu leer gi yàlla wax naa waxtasimu bi hablillah bi sécurité nationale bi la ñu njëkk jàng bu fekk na Sénégal ñu ngi ci daanaka diggante marto ak juillet waaw ah, mooy 2012 mawlud bi ma demandé demandé ñu ni ma réew ma dana tàkk mawlud bi mu nekk li naa ko waa xadara bi sax ma demandé wax wax wax lu nekk ñu ni ma kenn mënula tey ba réew mi du tàkk waaw te bu tàkkee ñu ni ma ci lay jaare abadan yàqu waaw li dal yeneen réewu Afrique de l'Ouest yi dal ko gàmmu gi waaw ma demandé ñëpp ca xay bu ñu ni ma réew mi kenn mënula tey ba du tàkk te ci lay jaare yàqu waaw ma tëral sama stratégie ndax dama ni su ma ñëwee gàmmu dinaa fekk yonent bi topp dinaa fekk Mawlana Cheikh Ahmadou Tidiane mu topp te foofu loo fa jàng dañ koy garanti bi ñu ñëwee mën leen ñu agsi mën leen ñu yëkkati hymne national buñ ko yëkkatee ñu garanti ka keroog la stabilité waaw jaaxaloon na nit ñi gàmmu gi dañu dugg si yëkkati drapeau Sénégal yëkkati national ci biir gàmmu gi gàmmu gi dén bos xam nga boo fekk na problème bu troisième mandat waat bi dee xeex bi fi amoon ak yeneen moor yaag ca de l'Obélisque waaw keroog ba ñu ñëwee ñu yëkkati hymne national bi euh, bu ñu yëkkatee hymne national bi yëkkati en même temps drapeau Sénégal mooy soobee dem toog ba gars yi laajee mën leen comme wax naa ñëpp ñu ni ma dana tàkk ma ni léegi bu ma ñëwee yonent bi su toogee Cheikh toog loo fi wax da nga koy garanti wax nañ ko garanti loon ko si fii te gis nga élection yi lañ doon ragal jaar na ci yoon ñu koy jeex na jàmm am <laughs> waaw ñu ngi ko defee ci Angleterre defe naa boobu deux cent deux cent personnes sax fa teewul waaw kon nga xam ne yooyu moom yàgg na ci wax dëgg yàlla ci gàmmu bi macha allah <laughs> léegi ñu ko xam ne aussi hymne national bi parce que am na benn bopp ñu ci doon waxtaan. Mm-hmm. ñu ngi gisee ni ñu ni ñu fent bi. relation wala ñoom dañ ko xam nga man dafa bokk ci sama mission. du mission nag bu ma Mawlaa Cheikh Ahmadou Tidiane Chérif dénk mission bi Mawlaa Cheikh Ahmadou Tidiane Chérif dénk mooy 2022 2075 mission universelle bi nga xam ni adduna bi yëpp war nañ ci jot mais dafa am loo xam ni mag ñi ci réew mi dañ ma ko ñaan ñoom bi ñu demee dañu ni comme yaa nu wuute ci réew mi nan doon fexee ba yéene réew mi di ci ñaan jàmm fexeel ba boo amee tuuti temps protéger réew waaw moo tax su ma yëgee ni réew mi ci benn côté rek ma jóg dugg si roq wala yëkkati loo xam ne su ma ko yëkkatee ñi bëggoon déstabiliser Sénégal daanu xool ne ah kii kat moom daana ko lënka coris ndax bokk na ci démb guddi Maola Cheikh Mahi Ibra Drapeau Sénégal bi waaw yooyu yooyu du ma ko def rek ndax dañuy décorer wala déedéet dafa am lu tax damay yëg ni xëy bi dañuy toll ci moment yoo xam ni bu leen leen seetaanee mën nañu mën nañu seetaan réew mi suñ ko bëggee seetaan nag bu ñu gëstoo tuuti xool gis drapeau Sénégal ñu teg ko ci sunu wet wàll nu xool ne ah moom de moom fa la dëkk wala moom de la nekk ñu ne ah kon ka xaaral ñu euh, jubluwaat ci yu mel noonu moo tax ma koy def <laughs> te ma mënul lu ma def rek woon nit ñi naan bu ngeen gisee ma def lii lii la wala la la waaw mais yu mel noonu toujours moo nii motivé macha allah mm-hmm. xam ne moom mystère kese la ah, ah, ak euh, hymne national bi mm-hmm. ak garantie boobu nga xam ne def nañ ko ci mm-hmm. ndax Mawlaaya Cheikh toog na yonent bi toog mm-hmm. ñu gis ne hymne national fu mu jógee ci Senghor exactement waaw ci Senghor ndax bu boobaa Senghor rek dugg ci garantie bi xam nga problème mu hymne national euh, jotewul ak dara ak problème mu Senghor ak problème mu ñu créé xaw ma guitare baak ñi ko jotewul ak loolu dara gis nga boo nekkee maanaam un musulman d'accord yow tu es un musulman tu un croyant mais en même temps tu es un citoyen par exemple ci benn pays ak pays bu mu mënta doon nag ñun citoyen Sénégal lañu même bu fekkent ni nationalité universelle lañu ñu amee ndax kenn ku nekk war na jote ci suñu mission mais citoyen Sénégal lañu gis nga ñu bari di maanaam jël wàllu tey jii li jëm ci wàllu euh, civisme sànni fële ni wàllu islam rek la ñuy jël c'est parce que dañoo boo déggee jamono maanaam tey jii mën nga doxal sa diine doxal lumière doxal tarixe bi doxal leer gi respecter réew mi nga nekk kenn xoolu ci naan hymne national bi parce que Senghor wala parce que kii moo bokkoon ci ñu koy bind wala non non dépendul ci bi sax li muy xam nga lu mu dépendre mooy ci cadre symbolique bi cadre symbolique bi tey bu ñu taxawee fu nekk bu ñu taxawee ci yenn cérémonie gën a mag ci Sénégal Sénégal bu génnee à l'extérieur ñu koy représenté lan la ñuy euh, taxaw wane ni ñooy représenté Sénégal hymne national boobu la ñuy yëkkati kon cadre symbolique bi kon ñun aussi bu ñu bëggee wan waa xëy bu ni leen tey jii kat fi ñu taxaw ñun Sénégal la ñu représenté duñ leen ko wan ndax dañuy indi yenn aaya wala yenn xaqiiqa leer yoo xam ne kenn xamu ko dañ koy yëkkati loo xam ne ñun moom la am donte nag loolu day dellu ci zahir dellu ci wàllu àdduna lool loolu lañu am suñu yëkkatee loolu nag ñoom ci loolu la ñuy jaare comme ci cadre symbolique bi ñu xool ci ni ñii kat lii mooy seen réew ñu jàppale ñu ci ci li ñuy ñaan ñu jàppale ñu ci waaw mais jotewul ak dara ak ki ko bind ak lan ca wax ak lan ca def ak ndax garantie baak loolu jotewul ak dara loolu moom beneen domaine la beneen dimension la beneen réalité waaw incha allah mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah bi it nekk garab gi gàmmu 2009 jël naa ci deux heures de temps di ko jàngal garab gi waaw réalité ndax mi ngi saxoon 1904 garab gi 1904 la sax waaw waaw garab gi mi ngi sax 1904 waaw maa ngi jàngale réalité am yëpp waaw ba ba liaison bi mu am ak Ibnu Arabi lu tax mu wate woon wàllu xat xatmiir Ibnu Arabi wate woon na xatmiir waaw loolu laa doon jàngal relation bi ñu amoon ak réalité bi tabarakallahu assalaamu aleykum le public de Médina Cheikh waaw ma leen di ñaan ngeen tàcc bu baax a baax a baax a baax le festival des arts spirituels waaw comme ni ko Khalifa Babacar waxee c'est un événement inédit pour la première fois dans l'histoire du Maouloud à Médina Cheikh ñu initier le festival des arts spirituels muy festival boo xam ni nag comme ni ko Khalifa waxee xale yi ñoom ñooy exprimer talent yi nga xam ni yàlla def na ko ci ñoom ci wàllu jàng alquran ci wàllu le bilal du mardi ci wàllu way ak ci wàllu taalif muy loo xam ne nag commencé nañ ko année bi en deux mille vingt-trois muy la première édition ñaan nañu yàlla nag festival bi gunge xale yi gunge xale yi ba deux mille soixante quinze. Allahu nuuru la ilaha illallah. Allahu nuuru la ilaha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 gannaaw ba ñu sant yàlla ñu julli ci Seydi Ahmed te di yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu yeesal suñu ziyaare ci ngand mu tedd mi te di Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif waaye ñu jaarale loolu ci suñu bunt ci moom ci ki nga xam ni mooy Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif ki nga xam ni mooy Seydi Ahmed te di yonent bi alayhi salaatu wasalaam di le missionnaire de la fin des temps Mawlaya Seydi Mohamed El Cheikh tabarakallah ma ànd ak suma jigéen di soxna Roqee Diop nga xam ni moom lay àndal muy la présentatrice ñu di ko ziare soxna Roqeya eh, kon nag ñu bàyyi la gën public bi tabarakallah bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokki Medina Cheikh nuyu nañ leen ziyaara nañ leen ci ni mu gënee tedd macha allah di rafetlu seen taxawaay tey ci bis bi euh, tey ñu fas yéene tëj euh, première édition du FAS euh, ñu fas yéene dalal sunu njaboot gu tedd bi ñu démb jàngal nañ ñu alxuraan defal nañu bilaal bindal nañu ñu taalifal nañ ñu wayal tey nag ñu fas yéene leen sargal di encourager xale yi Euh, comme ñoom ñoom moom mission bi ñu ngi leen di encourager ngeen gën a sawar ci euh, fas bi incha allahu di sant bu baax nag sunu sang bu tedd bi moom mi ñu permettre tey jii ñu teew fii ci fas bi bismillahi irrahmani irrahim assalaamu aleykum ñi ngi dellu si di ziyaara mbokk yu tedd yépp di dellu si itam di sant yàlla moom mi nu may nu fekke guddi gu tedd gi te di guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallaahu nuy dellu di ko ziyaara moom yonent bi waaye itam dellu di ziyaara te di ndokkeel ci guddi gi xatmiyaam te mu di sunu sang di mawlaay Cheikh Ahmed ibnu Muhammad Tijaani Chérif xam naa dafa mel na li yàlla dogal ci yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax tey baat bu mbokk yëkkati muy baat bu rafet rekk jëme ko ci jëmmam bu tedd bi fekk na yàlla moom jiitu la ci fekk na yàlla moom jiitu la ci ndax moo ko wax wa innaka la ala xuluqin azim nee na ka natt naa la ci jukko natt la ci teggin natt la ci yiw waaye bu ma ñëw rekk fekk ndeke jagleel naa la ba ca gën